mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak foo mën di nekk foo mën di féeti jokkoo ak moom ci téléphone bi rek sa ajo faj damaa waa jàmm rek xamoo ñoom dañoo am jàmm am salaam moo tax loolu xew la rek ma ñëw ci la demee loolu la rek ba sama xarit sama xarit la Balla baax ku am yëg ci doomu aadama looloo tax xew la rek ma ñëw mais luy mbay sapar sapar loo ni sapar sapar ji sapar sapar siisoloo ma ko tudde Cissé mu mag. waaw lu tax mu tuddee la ko. xam moom daa ragal corona. bi corona bi doog a ñëw ma ñëw euh, di ko nuyu rek mu ne ma oh. baal ko sappar ji corona bu bari bi wane nga lëfër lëfër jëm. ci laa ko sàcc nag tuddee ko sama bopp. daal di jël lëfër lëfër jaag sappar sappar. waaw daal di koy jël <laughs> mu mel ne lëfër lëfër xew na léegi xew. yoo yëpp dafa bari de. lëkk lëkk jek ŋaatar ŋaatar jeeg darax darax jeeg sibir sibir jeeg dookor dookor jeeg sappar sappar jeeg ñasaw ñasaw ji ak jañax jañax ji. ak sànjang sànjang ji dafa bari am na yu génnagut. ay baati wolof la. waaw waaw lépp ay wolof la. xam nga wolof fi mu doo ko waxee. Uh-huh. ñu bari duñ ko xam mais ay wolof yu wér laa indi. waaw. <laughs> tubarkalla tey ñu bëggoon a xam ñaari baat sa diggante yow ak Sa ak yow ak Balla Gaye. jàmm ak salaam. Sa Thiès bi ma njëkk a gisante ma moom maa ngi ko gisee palaasu Seexuna mi complexe xel koom muy nit ku baax falaa ko xame waaye ba ma nuyoo leeg ñoom ak léegi heure bu ma gisee dan dañu mel ni ko ma xam ñaar fukki ay doomu aadama ay nit ñu baax lan ñoo xam jàppe seen bopp ñu leen jàppe nit ñi man loolu laay ànd yooyu ay xaalis ak yi man jënduma da nga may def ne nga def sa bopp te ñoom noonu rek laa gis ñu def ko ñëpp képp ko leen di fréquenté rek nit na boo ko boo ko jegewut man nga ko waxal lu ne mais boo ko jegee rek danga xam nit ku baax la. Balla Gaye ak ay nit yu baax lan loolu rek laa gis ci ñoom. tey saa doom tuddee Balla Gaye tey yow loolu ban yëg-yëg nga ci am. waaw loolu bi ma ko déggee sama xol dafa sedd ndax loolu rafet la ndax doom ku la bëgg du la ko tuddee doom ku la bëgg du la tuddee doom loolu nag mooy wane ni moog Balla benn lan moo waral mu jur doom tuddee ko ko. yàlla na gudd fan te wér te doon magum lislaam bokk ci milliardaires yi nag am xaalis bu bari yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko yàlla na ko def jërëjëf. Seexuna ginnaaw bi ñu la nuyoo di la ndokkale ndax ku ne xam ne sa digganteeg Sa Thiès di saaliwu man mi su ma bëggee am accès ci Sa ci yow mi lay jaar tey ñu bëggoon xam lii Balla Sa Thiès def tuddee Balla doom yëg-yëg bi en tant que xaruna waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp dañ koo rafetlu bu baax a baax a baax a baax ndax Salif dafa nekk koo xam ne lépp luñ lépp lu mën a am ci àdduna rek mooy yar moo koy may nit ak dal te yàlla may na ko yar yàlla may na ko dal loolu nag wax dëgg yàlla def na li mu war a def def na loo xamante ni bii tey amul kenn ku ko xalaatal initiative boppam la war na ni la magam la la baayam la Balla xaritam la te ñu ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen yàlla suturaal leen yàlla defal leen teraanga gën a suude seen diggante gën leen a defal lu baax daal loolu lañ leen di ñaanal. yow en personne sa diggante ak Sa Thiès ku ne xam ne ni ngeen mel. waaw Salif moom wax dëgg yàlla man mënu ma wax sax ci moom parce que Oudé mënul wax ci bëy wopp parce que lu ñu ci wax ñu ne dat baa tax waaw mais moom wax dëgg yàlla nit la koo xamante ne bii nit ko am couleur la nit koo xam ne du fàtte démb du fàtte dara man lépp loo xam ne am naa ko ci àdduna wala fépp fu may nekk du ma tëdd te gisante wuñ du tëdd te woowu ma waaw 24 heures sur 24 fu ma nekk ci kaw suuf dina ma wane ma foo nekk quoi kon nangoo sonn ci doomu aadama dëgg yàlla man sama diggante moom daal yàlla rek lañ koy seet moom lañ koy bàyyeel ok. jaajëf Fadal ok jërëjëf.